si xam na lii peut-être xam na la s'il vous plaît ah, les chiffres après ñu dem non laquelle il faut que ñu faire passer ko muy tremblement de terre au Maroc allahu sénégalais là yoo xam ne ñoo fa nekk jamono ji moom ma signale même que dans les rues de Casablanca. Casablanca euh, nit ñi ñi ngi génn déjà ci euh, mbedd mi euh, ngir tiit xëy na yenn ci ay yàqu-yàqu yoo xam ne peut-être mën na dal ci seen kaw bokk na ci aussi d'autres localités yoo xam ne touché na leen mu di Marrakech ak nee nañu même xaw na jàll ba tuuti ci Mauritanie. Uh-huh. ak ci information yi nga xam ne ni kii boobu ba léegi sax moom laay nekk di vérifier. Uh-huh. ndax bañoon a joxe une information qui n'est pas trop sûre. Uh-huh. mooy dans d'autres localité yoo xam ne am am na ci bokk na ci Algérie Espagne ak Portugal yoo xam ne laal na leen mais en euh, mi ngi toll ci magnitude bu euh, euh, mooy li nga xam ne moo di tremblement de terre bi am ca Maroc jamono ji sax am na sànq ba léegi ku ma ciy jokkool xëy na duñ ko mën a jëloo téléphone mais en tout cas nee ma ñi ngi dans les rues de Marrakech. Mhm. ak fu ci mel ni Casablanca ndax moom mi ngi Casablanca génn. nit ñi génn ci mbedd bi voilà ndax ragal ñoo taxawati ci kër yi ndax ragal. mu di tremblement de boo xam ne information boobu ba léegi mi ngi circuler moom la nekkoon di vérifier. d'accord alors yal na ci de def jàmm de toute façon Issa on va continuer à suivre ça. fii ak ñuy paree. am na am na am na certainement qui nous regardent euh, à Casablanca actuellement euh, bu ci amee ñoo xam ne mën nañu jaar ci Charles pour intervenir directement dans l'émission wax ñu ce qui s'est passé am na sax kenn ci ci ñun notre euh, sœur Fatou bi nga xam ne mi ngi mi ngi foofu nekk fii ci Walfadjri su fekkee ne moom Fatou mi ngi ñuy seetaan actuellement si elle a des informations par rapport à ce qui loolu boo ko mënee contacter également ñu xool ak moom qu'est-ce qui se exactement là-bas mais en yàlla na yàlla def euh, liñ ciy tiit bañ ci am. alors très rapidement li nga bëggoon euh, préciser. Euh, ñu avancer parce que là bëgguma un débat entre. d'accord li ma bëggoon préciser d'abord bon. Mhm. comme information bi wàcc léegi peut di masawu peut-être que ay concitoyens yi nga xam ne.